bi rek affaire bi def ma comme genre comme genre grippe. loo may defaral ni sa chemise laa lay defaral yaay. wala tax nga bëgg ma. waaw bi ma la bëggee. yow fexe yow fexe nga ba delloo ma bëggeel ko. barki Serigne Touba Mbacke. barki borom Touba bëgguma la man kese ah. dëgg ah. bi ma la bëggee. ah fexe nga ba delloo ma mbëggeel. waaye ban jéeg nga gën a bëgg ci àdduna. yow nu mu tudd la tudd nan la man jàppa man sama yëf neex